Euh, tey seen rubrique décortique famille sénégalaise épisode 101 la leen andil euh, ñu door ko ak séquence bu njëkk bi euh, ñu gis ni inspecteur donte nag ki nga xam ne moo di Bator moo ko fa woo waaye xam na bu baax a baax kan mooy Bator ba tax nag muy dànkaafu ki nga xam ni moo di maar ngir rek mu def ndànk sinon rek soxna Bator mun na ko gasal kàmb mu mel ni kon moom soxna Bator ñëpp ko xam jamono ji ñëpp xam itam li nga xam ni jaral na ko ko ngir rek daal di am li mu bëgg ba tax nag ki nga xam ni moo di maar mën nañu ni rek am na chance ndax gannaaw bi nga xamee ni oustaz Adi xelal na ko inspecteur itam ñëw na dolli ko ci mu mel ni ñaari conseil yooyu bu ko toppee amaana rek soxna Batoor ndëgg sërëx bi nga xam ni moom la ko bëgg lalal rek du ci euh, daanu euh, mu mel ni kon euh, li ñuy wax jigéen ak seytaane ñoom ñoo yem ba tax na nag jigéen bis bu la bëggee noono wala nag bis bu la bëggee def loo xam ni lu métti la rek faaw mu atteindre ay objectif ndax comme li ñuy wax rek jigéen du rëbb sooy ñu jàll Euh, mu ngi euh, wax ak euh, sagar ngir rek mu dem waxtaan ak batóor ngir mu bañ a yàq xew mi mu mel ni ñëpp nag seen xel lenn rek moo ci nekk te mooy gannaaw bi inspecteur waxee na soxna batóor des ci kër gi ba xew bi passé ñëpp xalaat nañ ni rek batóor du bàyyi mu sedd ndax ku ne xam na ni rek batóor moom saa su ne rek mu ngi xalaat ay xalaat yu ñaaw jëmale ko si nit ñi waaye ki nga xam ni moo di sagar moom dafa bañ xamal ngóone ni ko rek loolu du ko mën mu mel ni kon jamono ji sagar dafa raxasu ba set wecc ci ki nga xam ni moo di ba tuur mu mel ni nag euh, noonu rek la mën a def ndax yaakaar naa euh, nit moom bu bonee ba won la carrément ni dafa bon euh, da nga koy rek daal di seetaan ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni jamono ji ñëpp lu ñu bëgg mooy maar dem waxtaan ak Batoor ngir rek mu bañ a yàq feet bi mu bàyyi leen ñu xew seen xew si jàmm mu mel ni Batoor jamono ji ñëpp a koy móolu loolu nag yaakaar naa nit bu demee ba àgg foofu nekk na nit koo xam ni ko war a xoolaat boppam la war a defaraat toogaayam waaye itam dal soxna Batoor ndax jour boo yaakaaree ni rek tey soxna Batoor dina euh, bàyyi boo bu lay gën euh, ñaaw euh, moom nag Batoor moo ngi jéem a manipuler maar waaye nag maar dégluwu ko mu mel ni maar moom dafa ferm ci décision wam te mooy bëggatul gis benn yoon soxna Batoor waaye li mu bëgg rek mooy soxna Batoor daal di koy abal te it nag li nga xam ni xelal nañ ko ko tax na nag bëggul àgg ak moom fenn fi mu mel ni kon moom Batoor wéet na trop à part ay yi nga xam ni ñoom la àndal ñëpp ko daal di wan ginnaaw ñu jàll nag mu ngi dànkaafu Fanta moom it ngir rek mu moytu batóor euh, mu mel ni kon euh, jamono ji kër gi métti na torop ñëpp leen rek mooy seen wax te mooy nu ñuy def rek ba daal di moytu euh, batóor mu mel ni kon itam ñoom ñëpp comprendre nañ ko ba tax nag ñëpp rek ñoo taxaw si seen ay garde ngir rek ba moytu ba nga xam ni soxna batóor du leen dugal ci ay tooxi doonam ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni nag moom batóor gannaaw bi nga xamee ni ñëpp rek ñoo ngi taxaw temm rek di xalaat ndax dina def dara dara mu mel ni ci tànk yooyu la nekk ndax nag defiyee na koddu te mooy rek dafa ni euh, dina rek daal di euh, jël xew bi daal di koy aaki moom euh, mu mel ni kon commencé na rek di jàmbat ndax si repas bi nga xam ne tibbal nañ ko ko commencé na rek di ci kaas ndax xamle na ni mooy première njëkk bi mu mel ni kon ki nga xam ne moo di àll moom premier njëkk boobu bëggatul rekk wax lu ci jëm waaye Mariatu comme toujours xamal na leen ni rek nañ rafetal ndax bëtóor bugul lu dul yàq xew mi te nag bu ñu ko ko may ñu jeexal ak séquence dimanche bu mujj bi euh, ñu gis ni euh, jamono ji kër gi ñëpp xam nañu batoor te ñëpp nag dañuy xalaat ni rek euh, dina xëpp suuf si cere ji mu mel ni kon jamono ji ñëpp rek taxaw temm ngir rek daal di taxaw ngir batoor fu mën a fëllee rek ñu daal di koy barikaare waaye ki nga xam ni nag moo di ki nga xam ni moo di koddu moom gis nañu ni jóge na salon waaye nag mu ngi feetu feetam waaye ku ne xam na ni batóor bàyyiwu ko ca ndax batóor moom it mi ngi ci biir di pré préparé wu li jaaxal ñëpp nag mooy li mu yéex a wàcce waaye nag mu mel ni euh, su wàccee dina fekk àll taxaw ndax àll mi ngi taxaw ci buntu euh, néegam euh, téye ab kuur ngir rek bu soxna Batoor génnee mu daal di koy empêcher mu dem ci xew ma ndax xam nañu bu baax a baax ni bis bu wàccee ba dem ci ngénte bi ambiance bi fa nekk yépp dina ko yàq mu mel ni kon soxna Batoor mën naa ni moo raw dorog ci kër gi walla sax moom moo raw rek xaj ci kër gi ndax yàq rek la fu mu ñëw fekk fa jàmm mu daal di fay indi fitna fu mu ñëw fekk fa jàmm mu daal di fay indi ay ba tax nag jamono ji ñoom ñëpp a taxaw nag ci seen garde kenn rek nanguwu ko may dara waaye ku ne xam na ni soxna ba Batoor lépp lu mu bëgg rek da koy def te yéen nag jaral na ko sax euh, def loo xam ne naka sudul noonu la waaye nag dina atteindre ay objectifam am kon boo ko internet yi fii la ñuy yem ci épisode 101 bu seen famille euh, sénégalaise ñu jox leen dig daje si beneen épisode waaye laata boobu leen di abonné ci seen série TV te bu ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf